amma ba'd ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi wax mbokk julli ñëpp asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di leen nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di ñaan boroom subhaanahu wa taala boo leen di leen ndokkeel itam ci weer wu tedd wi nga xamante ne moom lañu nekk muy weer wi nga xamantene ne mboolem borom xam-xam rahmatullah alayhim wa radiya anhum dëppoo nañ ci ne ci la sangi-sangi yi gën a àdduna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu fas ci yéene nag comme li nga xam ne noonu lañ ko defe woon ci at bi weesu def benn xeetu liggéey ci rayu zamaan muy nuun ya mi nga xamante ne moom la Cheikh Seydil Hadji malik si ibnu Usmaan alayhima rahmatu wa ridwaanu rahmaan euh, bindoon euh, ren incha allahu taala ñu fas yéene ñëw ci beneen beneen liggéey euh, boo xamante ne xeetu mawlid la maanaam xeetu xasida yooyu la nga xamante ne dañ ko taalif te muy wërwërloo ci di wax ay jaloore yenente bi sallallahu alayhi wa alihi te léeg-léeg ci yu demee ne ke weeru gàmmu wala yu mel euh, wala jotaay yi nga xamante ne ay jotaay la yu ñuy fàttaliku sallallahu alayhi wa sallam maanaam yenente bi alayhi salaatu wassalaam ak di fàttaliku ay jaloorem maanaam ak màggaayam ak li nga xamante ne moom moo euh, def benn mbir boo xam dafa xaw a dafa transversal ci ci nekkinam maanaam ci dundam Euh, ñu koy faral di waxtaane wala boog ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy faral di euh, bëgg di fàttaliku lu mel noonu di faral di jàng xasida yu mel noonu euh, xasida yu mel noonu nag borom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ koy dañ ci faral di taalif boo leen fàttalikoo bu fekkente ne ku suivre suñu jotaayu noonu yi la dina gis ne dafa am ay thèmes yu bari ay thématiques yoo xamante ne yooyu la maanaam aji taalif ji radiyallahu def def ci mbir mu mel noonu naka noonu tamit daanaka presque même thématique yi euh, ñoom ñooy ñëwaat ci euh, mboolem xasida yi nga xamante ne lañ mel mawlid yi euh, li nga xam ne moom mooy kon xasida bii ñu nar a gis incha allahu taala moom mooy alhamziya maanaam tamit maanaam nekk tamit téere xasida boo xam ne mi ngi tudd ummul qura Euh, si gën a siiwee ci Hamziya bu euh, al imam Abu Abdullah euh, Muhammad ibn Sa'id ibn Hammad al-Busayri radiyallahu ta'ala anhu imam al-Busayri radiyallahu anhu lañu wax ne mooy buuru ñi nga xamante ne ñoom ñooy tàggkatu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir daf cee am ak jaloore bu rëy rëy loolu moom moo tax daanaka fu ñu tuddee ñi daan tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci saxaaba yi radiyallahu anhu ku mel ni Seydina Kaab ibn Zuhair eh, ak ku mel ni Seydina Hassan ibn Thabit radiyallahu anhuma maanaam daanaka munuñ ci teg keneen ku dul imam al-Busayri anhu loolu nag borom subhaanahu wa taala moo ko defal ba nga xamante ne eh, ci mboolem goxi adduna bi xasida bi dañoo nekk loo xam ne lu siiw lañ rawatina xasida yi nga xamante ne maanaam mooy comme al burda burdatul madeex wala kaw ko bu durriya euh, xasida boobu siiwaayam ñi nga xamante ne ñoom ñooy mag ñi xattaa ba gone yi xam nañ ko mu nekk xasida boo xamante ne ci mbooleem euh, goxi àdduna bi nit ñi dañ koy jàng mu nekk te loolu depuis maanaam ci jamono imam Busayri même radiyallahu anhu muy e, juróom-ñaareelu qarnu bi maanaam juróom-ñaareelu siècle bi ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa te loolu moom boo xoolee tamit am na qasida bi nga xamante ne moom lañu ñu war jàng léegi incha allah mooy muy hamziya bi am na tamit al almudariya mooy ñaare bu ñuy jàng burda bi ñaare moom lañ koy jeexle e, mooy bi tàmbale yaa rabbi salli ala almuxtaari min wal anbiya wa jami' al rusuli ma dhukiru mooy xasida boobu am na tamit xasida bi nga xamante ne tamit siiw na ci muy al muhammadiya te moom mooy bi tàmbale muhammadun ashraful arabi wal ajami muhammadun xayru man yamshi ala qadami sallallahu alayhi wa sallam euh, naka noonu bind na ay xasaayid yu bare bare ab laamiya bind na xaa'iya bind na baa'iya bind na euh, yeneen xeete xasaayid yu bare bare lépp nag ci xasida yooyu mu nekk koo xam te ne daf koy tàggee yenente bi alayhi salaatu wassalaam euh, ci lu jiitu imam al-Busayri radiyallahu euh, moom mi ngi gane àdduna euh, ci juróom-benneelu at ak juróom-ñett juróom-benneelu téeméeru at bokk ak juróom-ñett maanaam mooy six cent huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom mooy li xam ne moom la mu xaqiqu na yoo wax alayhim su dul loolu moos wax nañ ne tamit six cent septième année la maanaam juróom benn téeméer ak juróom-ñaar ala kulli xaaleen euh, ci diggante boobu lay wërwërloo euh, mu nekk nag koo xamante ne dañ koo xamee euh, en tant que maanaam da daan taalif ay xasida ci yeneen i mbir maanaam nga xam ne dafa jàngoon maanaam dafa géeju woon ci ilmul adab mooy xam-xam yi wërwërloo ci littérature ak tamit nekkoon koo xamante ne xaqiqatan dafa géej woon ci yoonu tasawuf maanaam yoon sóobu ci yoonu yàlla dafa sóobu woon ci yoonu yàlla ci tariqatu ahlul mahabba maanaam yoonu ñi nga xamante ne dañoo sopp boroom subhaanahu wa taala sopp yenente bi sallallahu alayhi te mbëggeel googu noonu moom moo leen di animé te moo leen di eh, yóbbu ci lépp lu ñu jëm nga xamante ne dañuy jeex takk ci boroom subhaanahu wa taala ndax tariqa yi yoon yi dem ci yàlla xaqiqatan ñaari xeet la dafa am ñu ñu tuddee tariqatul ijtihad tariqatul mujahada tariqatul mujahada ak tariqatul muhabba maanaam ashukr wal muhabba muy yoon yi nga xamante ne mooy yoon bi nga xam ne mujahada la mooy ne ay xeet yi yulli ak coono ci mbir yu bëree bëri bëri yoo xamante ne ay jaamu yàlla lañ na am waaye léeg-léeg maanaam nit ki daf koy def ngir mën a tàqalikoo ak ay yenn euh, tilim tilim yu nekk ci moom wala ay taq-taq wala yoo xamante ne bu jikko yoo xamante ne yu gërëm la maanaam yu ñaaw yi euh, yooyu nag ak coono gu bëree bëri da cee nekkoon naka noonu xataa ba ñi ciy tarbiyewaate ñi ciy yar nit ñi di leen yóbbu ci borom subhaanahu wa Euh, seen xeetu doxalin dafay nuroo lool ak doxalinu militaire yi par exemple nga xamante ne euh, dañ lay yónni di la sonnloo di la xiifloo di la dugal ci maanaam yu baree bari ay coono di la ci daj maanaam ngir dëgg-dëgg nga mën a tàqalikoo ak maanaam yi nga xam ne moom mooy diisu bakkan gi nga xam ne moom mooy nekk ci nit ki di ko njatt ah di ko gatañ ba lu baree bari ci jaamu yàlla yi nga xam ne moom la war a def ko mën waaye tamit li nga xam ne moom moo koy sóob ci digganteem ak borom subhaanahu wa taala du jàppale ci moom euh, imam al Busayri nag radiyallahu moom tariqa bi mu jëloon moom mooy euh, maanaam beneen yoon bi la comme ni nga xamante ne euh, moom mi ngi tàmbalee xeetu yoon woowu ci tariqatu Shaziliya tariqatu Shaziliya bu al imam Abul Hasan al Shazili radiyallahu taala anhu moom mo nekkoon sëriñu euh, abul abbas al mursi abul abbas al mursi boobu nag radiyallahu anhu di sëriñu ñoom ibnu ata'illah sikandari moom mooy jëmmi sëriñu imam al busayri radiyallahu anhum ajma'in moom moo leen tarbiyandoo maanaam moo tax ay àndandoo lañ woon ci buntu tarbiya euh, mujj moom imam al busayri radiyallahu anhu comme ni ko di seedee mu nekk koo xam ne dafa jeex tàkk ci borom bi dafa jeex tàkk ci bëgg yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon xasida yooyu nga xamante ne moom la bind maanaam mu taalif ko euh, moom décision la bu mu jëloon ne dootul bindati benn xasida ludul ne daf ci tagg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dootu ci nekkati ci di ci tagg keneen wala mu ciy wax ci leneen déedéet borom subhaanahu wa taala daf ko wërsëgal xam-xam bu tollu noonu ak euh, mu xam euh, liy ci wàllu euh, char way mu ne nag léegi moom dootul taggati keneen kudul yenent bi alayhi salaatu wassalaam kon loolu nag moom la imam al-Busayri radiyallahu ta'ala anhu def nga xamante ne léegi ci xasida yu bari bari boo ko xoolee daf ci tagg ki nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam te bokk na ci mooy taarix euh, xasida hamziya bi euh, mu nekk xasida boo xamante ne nitu yàlla yi dañ ko fonk lool mu nekk xasida boo xamante ne dafa rëy lool ci bëtu nitu yàlla yi radiyallahu anhu ngir xam gi xam sew-sew yi nga xamante ne moom moo ci ak maanaa yi nga xamante ne euh, moom moom la ci imam al-Busayri radiyallahu anhu di développé ba nga xamante ne képp koo xamante ne euh, daf koy dafa dafa versé wu ci xasida bi day gis dëgg-dëgg li nga xamante ne moom mooy màggaayu li nga li li mu nekk di euh, di yër maanaam màggaayu euh, woy wi na Tijaani Cherif radiyallahu tabaraka wa taala anhu bokkoon na ci xasida yi nga xam ne moom la gënoon a fonk ci kashful hijab Sidi Ahmed Sukiri radiyallahu anhu mi ngi nettali mi ngi wax ne am na ku wóor ku ko nettali te gis na ko ci mbindam Sayyidi al-Arabi ibn Saalih maanaam wali Saalih Sayyidi al-Arabi ibn Saalih radiyallahu ta'ala mu jëlee ci Cheikh Abdul Wahhab ibn al-Ahmar radiyallahu nekk taalibe bi daan ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu mu ne ñoom day laylatul mawlid guddi gàmmu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tënk wax moom la leen doon digal ñu di ko jàng ci zawiya bi te moom Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu da ko daan gàmmoo moom xasida bi di euh, alhamziya mu ko daan jàng mu nekk euh, d'ailleurs def na ci am prix manam mom ci jëmmé bopum Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu def na ci piri manam leral na qasida bi euh ci euh téré bo xamantene Seydi al haraz Barrada radiyallahu anhu moo ko bind mu tudd al-irshadatul rabbaniya bil futuhatil ilahiyya nga xamantene daf ci doon wax li nga xam ne moom mooy maanaam da ci doon leeral maanaa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci xasida bi nga xam ne moom mooy alhamziya te borom xam-xam yu bari bari bari sharxa nañ ko ku mel ni al imam ibn ajiba al anwar al qudusiyya fi sharx al hamziya ku mel ni al xaafiz ibn xajar al haytami mu tuddee ko Euh, al minahul makkiya fi sharh al hamziya wala bokk mu ne def ni euh, bi ma ko tuddee noonu après ci laa xam ne moom xasida bi maanaam dafa gën a siiwee ci hamziya mais xasida bi ummul qura la tudd moo tax mu wutalaat sama téere bi beneen tur bu tudd afdalul qira li qurra'i ummul li qurra'i ummil qura ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne euh, taal euh, bind nañ ay euh, ay ci qasida bi qasida bi solo nañ ko ci ay riwayat yoo xamante ne yu bari la walillahi alhamdu wal minna waaye dañ ci lim benn boo xamante ne buñ ko limee rek nga xam ne dafa jaar ci cheikhuna alqutb almaktum wal xaatam almuhammadi almaalum abul abbas ahmad ibn muhammad atijani radiallahu tabaraka wa taala anhu bu ko defee mu doy ñu wëllif yeneen yi nga xamante ne yépp mooy yeneen càllale yi nga xam ne moom lañ ko soloowe kon dañuy wax ne dañu solo ci samahatul imam salahuddin at-tijani alayhi ridwanu rabbani moomu solo ci al-sheikh muhammad al-hafiz al-misri at-tijani moom mu solo ci al-sheikh muhammad al-sadiq al-riyahi at-tunisi moom mu solo ci al-sheikh at-tayyib an-nayfar at-tunisi موم مصلو تي العلامة الشيخ الماحي الدارفوري موم مجلي تي شيخنا القطب الرباني والعارف الصمداني ممد كل أولياء الرحمن أبو العباس أحمد التجاني رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنهم أجمعين موم مصلو تي الشيخ محمود الكردي العراقي نحن سيرينيوم لول تي طريقة الخلوتية maanaam moo ko muqaddamaloo moom musoloo ci ci cheikhul islam cheikh Muhammad ibn Salim al xafani al misri moom musoloo ci cheikh Muhammad Abdullahi al Saljamasi moom musoloo ci cheikhul islam al cheikh Abdullahi ibn Salim al basri al makki moom musoloo ci cheikh Muhammad ibn cheikh Alauddin al babuli al misri nga xamante ni ñu bëri bëri bëri ci seen càllale yi ci cheikh al babudi bi la seen yoon yi di jaar ci daanaka ci domaine yëpp ci téere yu bëri bëri moom mu solo ci cheikh abu najab salim ibnu muhammad as-sanhudi moom mu solo ci xaatimatul xufaaz muhammad ibnu ahmad ibnu ali al-ghiti moom mu soloo ci cheikhul islam abu yaxya zakariya ibn muhammad al ansari moom mu soloo ci amirul muminina alxafiz ahmad ibn ali ibn xajar al asqalaani muy imam bu màgg boobu nga xamante ne moom radiallahu anhu moom laa tuddee pong bi maanaam moom pong bi laa ko tuddee li tax ma tuddee ko pont bi nag maanaam moom mooy moom dafa nekk pont entre ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu njëkki ñi ak ñu mujj ñi maanaam boroom xam-xam yu njëkk yi euh, bu ñu leen xoolee boo bëggee jote ci ñoom ci wàllu xam-xam sa càllale daa iman day jaar lu ci ëpp fuuf day jaar ci alxames bu xajar mais wàll nga bëgg jokk jot jokk ci benn borom xam-xam ci ñu njëkk na lu dul nga jaar ci alxames bu xajar. العسقلاني رحمه الله موم نا الحافظ ابن حجر العسقلاني دا dafa جيلي سي نيت سيرينو ño xamni ñom ñep ñoy ñooy ñom ño nekkon imam wa aduna euh muy cheikh zainuddin al iraqi cheikh sirajuddin al bulqini nga xamne ne تي آه، زين الدين العراقي موي الحافظ العراقي بمقبوب داير موي بروم الفية بي انسي بسويت نغا خمني جارو نيت ني ني موم بروم الفية تامت تي سيرة بي سيرة ينان بي صلى الله عليه وسلم موم اك شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني نغا خمني الحافظ بن حجر رحمه الله سوي وقت فتح الباري مشارح صحيح من البخاري رحمه الله سوي وقت إيه، شيخ الاسلام نينا دا مانام آه، الحافظ البرقيني بوب لا تي جوبل موي سيرينم بي ا آه، كون اك الشيخ سراج الدين ابن الملقن مون تام شيخ الاسلام ا آه، الامام ابن الملقن موي بوروم بدر المنير يينن تير يو ام سولو يوي nga xamne rahmuhullah mom la bind ا ñom ñi آه، أبو عمر ابن البدر ابن جماعة موم مجلي قصيدة بي تيكيغا خامن موم موي كيكو تالف موي الامام ابو عبد الله محمد بن سعد ال ابن محمد البوصيري رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع موم بسم الله الرحمن الرحيم كيف ترقى رقيك الانبياء yaa sama an ma taawalatha samaahu ba xasida bi jeex xasida bi imam al-Busayri radiyallahu anhu daf ko bind mu nekk quatre cent cinquante six ci ay abiyat ay bunt léegi bunt yooyu nga xamante ne moom la ko bind yëpp maanaam quatre cent cinquante six yi wax na ci <coughs> maanaam màggaay yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ak kawe gi mu kawe waxuma la wëliif ñi waaye dafa kawe lool wëliif yenent yi alayhi salaam ci kaw yenent yi daf leen a sut lool wax na ci lii aju ci wàllu jikko yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak maanaam ak askanu yenente bi sallallahu alayhi wasallam askanam wax na ci gëne àdduna ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi ak yi ci xew ci kéemtaan ak yi symbole yi nga xam ne ñoom ñoo ci daje wax na ci jikko yenente bi sallallahu alayhi yu rafet yi nga xamante ne moom la amee woon waaye tamit jëmmam ju tedd ja sallallahu alayhi wax na ci li nga xamne mom moy mooy ci ay kiimtaan yo xamne moy ay mu'jizat yo xamne ne doon na def bi nga xamne ne dafa ëlëmloo mboolem bi fi wax na ci mbolam yeneen mbir yo xamantene euh yu bare bare lu yu yuy wërwër lu man ci Isra wal Mi'raj waxna ci gaday gi euh ak yeneen ak yeneen yo xamantene waxna ko yoo xam benn bu ci nek parti bu ne incha allahu taala suñu ci yegsee dinañ ne partie bii de imam al-Busayri radiyallahu anhu maanaam fii lay tàmbalee di wax ci nangam kon eh, loolu moom mooy li nga xam ne moom moo aju ci eh, wàllu eh, xasida bi cent nag mëneef na ko tuddee mooy bi mbaj maal baxari mooy ne ci barke wala mi ngi jaare ci ki nga xam ne moom moo dajale ñaari géej muy géeju sharia ak géeju xaqiqa wala boog ci oriental maanaam mooy bi Muhammadu Rasulullah parce que Muhammadu Rasulullah oriental mooy 454 voilà kon yooyu yëpp nga gis ni symbole yenent bi sallallahu alayhi wa sallam def ci ne euh, li ñu fàtte wax bi ñuy wax ci taar ci histoire imam al-Busiri radiyallahu anhu mooy mi ngi génn àdduna moom euh, ci li gën a siiw 696e année am na ñu ne 697e année mais al imam al hafiz ibn hajar al moom nee na euh, de maam dafa taxqiq mbir mi te li mu soxal mooy 694e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa euh, maanaam nga gis borom subhaanahu wa ta'ala dëppale gi mu dëppale mbiru imam al-Buzayri ak yonent bi parce que 694 ci boppam moy at bi mu génn àdduna ci li gëna deugër ci li gëna wër ci li nga xamne non la ko al imam al-Hafiz Hajar al-Haytami tahqiq 694 moy muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, <coughs> léegi kon imam al busairi radiyallahu anhu euh, ne kayfa taraqa ruqiyaka al-anbiyaa يا سماء ما طاولتها سماء لم يساووك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها li aadamal asmaa kon noonu la ko tàmbalee mu nekk baxru boo xam ne xafif la eh, muy littéralement naan lu woyof maanaam muy junj ak làkkatu eh, maanaam muy xuutaayu maanaay yi nga xam ne moo ci nekk nga xamante ne eh, ñetti partie lay composé wu masra bu ne maanaam partie wu bayit maanaam eh, maanaam muy juróom benn partie yoo xamante ne eh, benn bu ci nekk juróom-ñaari xaraf lay composé wu globalement mooy eh, fa'ilatun mustaf'ilan fa'ilatun fa'ilatun mustaf'ilan fa'ilatun maanaam loolu mooy noonu la tëddee mu indi ci nag ay wax yu yéeme yéeme waaye tamit ay xeeti doxalin maanaam ni muy doxalee ci di leeral eh, di wax ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak tamit di def iqtibaas maanaam di tibbee ay wax yoo xam te ne boo gisee dangay gis ne aayam alquran moom lay daanaka eh, tuddaale maanaam wala di ko ak xeeti jinaas yi nga xamante ne moom la ci indi moom mooy di wax benn wax boo xamante ne baat yi ci seen bopp dañuy nuroo te duñu bokk li ñuy tekki yooyu yëpp incha allah taala am na ci yenn yoo xamante ne buñ ci yegg see ko wax mu ne kayfa waaw moo ana nan tarqaa la yéege maanaam kayfa ana nan day maanaam ndax kayfa maanaam su'aalu lil xaal la maanaam eh, at maanaam min adawaatul istifhaam day da nga koy dañ koy jëfandikoo baatu kayfa naka moo ana nan manam ngir wax mi nga xamne mom moy mooy aju ci ci ci ci di di laaj manam su alun anil hal manam moy di laajte xaalu mbir mi motax ko nga kay fa takfuruna billahi wa kuntum ta kom nak ana nan ngeen mën a yalla gis kom comme ni ko alquran di wax ana nan ngeen mën a yalla alors ko da ngeen dee woon mu dundal leen ana nan euh, maanaam kayfa yahdillahu qawman ana nan la yalla di gindee ay nit ñoo xam li mo nekk seen jikko dañoo weddi ay yàlla yi maanaam yooyu da ngay gis ne baatu kon kay kayfa ah, euh, maanaam loolu moom moo ko tax a jóg mooy nan mais sauf que fii istifham bi mooy questionnement bi imam al-Busayri radiyallahu anhu dafa tàmbali ginnaaw bismillahi rahmaani rahiim bi suuf mu tàmbali di laajte nan la nan la euh, yéeg gi mën a amee maanaam mooy kayfa naka mooy ne. dafa yii non seulement istifham inkaar yi la mais li ta maanaam li taajub tamit la mooy day dafay wax di diingat ne loolu mënul ne mais aussi day yéemu ci koo xam ne day mën a sikki sàkka ci ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak yéegam kenn mun a yéeg yéeg wu mel noonu moo tax mu ne kay fa ana naka tarqaa lay yéegi ruqiyaka sag yéegay al anbiya u yeneen yi alayhim salaatu wassalaam te ah, xam nga tarqaa Euh, « Mom »« Manam »« mudaari la manam day woné ni yenent bi sallalahu alayhi wasallam sallam mësta dañ di yek manam moy présent continu le motax c'est comme si que tu tay di yenent bi sallalahu alayhi wasallam sallam mi ngi doon yek mi ngi continue ni di yek te du deñ di continue di euh légui nak mom manam maadi moy verbe bi nga xam moy passé bi mom moy ñaar la mooy raqiya ak raqa su fekkente ne raqiya la bu boobaa eh, muy yéeg gi yéegu jëmm la te bu boobaa muy yéeg gi nga xamante ne tey buñ ko xoolee moom mooy rañaan gi mu defoon yéeg eh, maanaam yéeg tamit ci asamaan yi benn par benn ba weesu fi nga xamante ne moom mooy eh, arash maanaam ak tawkul axdar maanaam nga xam ne fa adduna bi yëpp jeexe borom subhaanahu wa ta'aala fa la bi maanaam yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weesu foofu yëpp nga xam te ne romb na ñoom sidratul muntaha romb maanaam maanaam visiter ak univers yëpp yëpp di dem loolu yëpp muy symboliser ni nga xamante ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënee kawe euh, noonu lay symboliser parce que bu fekkonte ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yéeg yam rek fi nga xam ne moom la yeneen yonent yëpp yam alayhi salaatu wa hatta bu maam ibrahim alayhi salaam nga xamne moy khalilullah nga xamne jurum juróom-ñaari asamaan la ne manam bu fekkonte ne mom dafay fay manam yeg gi mu yeg di dem lolu di symboliser ni euh kumu lolu kumu mu romb rek nga xamne ah ki kat ni la barawé manam ki kat nii la ma sute manam ko ñu gis ne mbolam yenen ti alayhi salaatu wassalam mom sut gi mu len sut dafa nek lo xamne dafa feñ te dafa bir dafa leer nañ lo xamantene ñaar nit ñu xellu Euh, mën nañ cee bañ a wute xattaa ba ñu xelluwul sax euh, mën nañ cee bañ a wute euh, loolu tax imam al-Busayri kon bokk na ci li mu yéemu ne waaw moo nan lay mën a yéegee ruqi yekk sag yéeg al anbiya yenent yi alayhi salaam waaye bu fekkente ne loolu moom mooy bu ko firee ne fii maanaam ci raqiya la jóge waaye bu dee ci raqa mooy yéegin bi yéeginu baatem la maanaam bu boobaa dootul nekkati rek di wax waxi rañaan kese waaye yéeginu maanaam melo yi baatini yi ak it le fait que borom bi subhaanahu wa taala euh, yëkkati ko ci euh, xadara bi nga xamante ne moom mooy xadaratul waxdatul mutlaqa euh, ndax borom bi subhaanahu wa taala ci xadaratul ahadiya nga xamante ne xadara la boo xamante ne moom borom bi subhaanahu wa taala dafay maanaam xadaratu zaat la mooy nekk-nekkam subhaanahu wa taala waaye ci anam goo xamante ne bokkul ak leneen waaye ci xadaratul waxdatul mutlaqa mooy xadara bi nga xamante ne moom bi sallallahu alayhi wasallam rek la fa boroom subhaanahu wa taala feeñu wan ko fa boppam mu wéet ak boroomam subhaanahu wa taala mooy ak benn mooy ak bennoo goo xam ne dañ ko joyal mu nekk ak boroom subhaanahu wa taala kese amul kenn ko mbokkaaleel dara naka noonu Euh, amma euh, xadaratul waaxidiya maanaam nga xam ne boobu moom foofu mooy xadara bi nga xam ne tur yàlla yeeg melo yi yëpp foofu lañ nekk yeneen yi alayhi salaam ñoom ci xadara boobu lañu ne kon da ngay gis ne euh, borom bi subhaanahu wa taala dafa yëkkati yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jagleel ko xadara boo xam ne moom rek ko am muy xadaratu waxdatul mutlaq moom ak ñi nga xam ne ñooy kummal yi mu mat ni ñi ko doon ci xeetam. waaye ñu dul ñooñu rek maanaam nekkuñ ñoo xamante ne maanaam ñu ko am lañ kon loolu day dëgëral ni yeneen yàlla yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam maanaam yeneen yàlla yi sallallahu alayhi wasallam ak yéegam ci baatin mënta ne maanaam xattaa ba yéeguñu fa waaye maanaam defu mënta ne eh, te loolu firi na wax na ko ci ay mbir yu bëree bëri te alquran wax na ko ci ay anam yu bari bëri eh, alquran. Euh, wax na ne euh, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd yenent yaa ngoog gënale nañ kenn ki ci kaw ñeneen ñi maanaam euh, te loolu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala moom noonu ko firee mais gënale nañ yenent yàlla Muhammad de sallallahu alayhi wa ci kaw boolem yenent yi alayhi salaatu te naka noonu am na ay mbir yu bari bari ay yu bari bari comme masalan bi boroom subhaanahu wa ta'aala naan kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi yéen yéen a gën yéen gën ci xeet yi nga xam ne moom lañ génne ci nit ñi kon nag yéenay xeet yu gën te moom mooy xeetu yenente bi sallallahu alayhi sikk nekku ci ne yenente xeet boobu kon moo gën a yeneen yenente yi alayhim salaatu wassalaam ba noppi eh, dajale na seen mboolem jikku seen mboolem melo yi ñoom ci boppam sax moom lañ ko ci moom lañ jëlee seen jikko comme ni nga xam ne loolu lañ koy gisee incha allahu taala euh, kon euh, moom yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa kon ak yëkkatikoom ci ay jikko yu rafet ci ay doxalin ci ay melo loolu amul kenn koo xamante ne ku ko mën a dab amul kenn koo xamante ne ku ko mën a la xattaa ba yenente yi alayhi salaatu wassalaam te yenente yi sikk nekku ci ne ñoom ñooy ñi gën ci mbindeefu yàlla yi euh, te euh, moom mi ngi naan aadama wa man duunahu taxta liwaa'i yawmal qiyaamati te loolu euh, muy xadis bu nekk ci sunan ak ci musnad imam ahmad rahimahullah mu ne maam aadama de alayhi salaam ak ñeneen ñu dul moom ci ay yenent alayhi salaam ñëpp ci sama morom euh, drapeau la ñu nekk yawmal qiyaamati moom moo ne wa bi yadi liwaa'ul sama loxo ci la liwaa'ul hamdi di nekke mooy drapeau cant boobu te xam ngeen ne cant ci lu mbir yi te yenen yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci doy na ci liy wane ngëneelam ci kaw mboolem ku dul moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy le fait que cant ci boppam nekk li nga xamante ne moom la ko borom bi rànge melale ko noona nga xamante ne turam yi ñoom ñooy ahmad ak muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala boog mahmud tamit maanaam nga xam ne lépp dañ koo xare ci sant kom li nga xamante ne noonu la ko sayyidna Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu waye ne wa shuqqa lahu min ismihi li yujillahu fadhul arsh mahmudun wa hadha muhammad dañ ko xarale turum wa shuqqa lahu min ismihi ci turum mom manam moy borom subhanahu wa ta'ala dafa jël turum mom xare ko ci turu xarale ko turu yenente bi sallallahu alaihi wasallam mu ne fadhul arsh borom arsh mahmudun moy ki ñi sant euh fofu nak jubluwu ci rek ne dañ ko sant dañ ko gërëm dedet waaye li ci jublu mooy day dellu ci cosaanu mbir mi ndax borom bi subhaanahu wa taala euh, ba mu maanaam ca azal ba dara dul dara bi mu nekkee moom maanaam ne càppaaculi borom bi subhaanahu wa dafa santoon boppam ci alhamdulillah maanaam alhamdulillahi rabbil alamin moo tax euh, sant bi mu santoon boppam subhaanahu wa muy cant goo xamante ne dafa labal mboolem xeetu cant yi mboolem melo yi ak tur yi euh, loolu borom subhaanahu wa googu nga xam ne moom la santoon boppam te euh, kenn mënu koo sant sant googa euh, sant googu nag euh, moom la la jël mu nekk secret yenent bi maanaam maanaam secret cant googu la def mu yenent bi sallallahu alayhi moom la la feeñal maanaam moom la mu feeñal ko mu nekk yenent bi alayhi salaatu maanaam ruux bi moom la ñuy wax maanaam mooy alxaqiqatul ahmadiyya ak al haqiqatul muhammadiyya euh, kon euh, sant googu nga xam ne moom la borom subhanahu wa taala santoon boppam euh, moom la ci la ci sant googu nag ci la mboolem turu yàlla yi ak melu yu génne maanaam turu yàlla yi ak melu yëpp ñi ngi feeñee à travers maanaam à partir de sant googu sinon xadara bi nga xam ne kon moo nekkoon ci lu jiitu mooy xadaratu zaatul mutlaqa as zaatul aliya mooy hadara nekk nekk borom subhanahu wa taala manam l'essence sanctifiée voilà azzaatul muqaddasa azat aliya voilà kon lolu mom moy nek nek gog borom subhanahu wa taala léegi nak ci hadara bobu nak ci la xarale motax imam Seydina hasan loolu mu wax radiyallahu anhu wax ju xóot la wax ju rëy la ndax daf ne bu borom subhanahu wa taala bi muy sante bopam ci alhamdulillah rabbil alamin Euh, ki nga xamante ne moom mooy mën a wax hada muhammadu sama sang bi mooy yente moom mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam mooy ki nga xamante ne xam nga euh, maanaam boo xoolee mubaalaga la maanaam dañ extrapoler le fait que mu nekk ku ñuy sant mu nekk ku ñu gërëm mooy muhammad boobu maanaam gis nga moo tax mu am maanaam bokkul ak mahmud kese maanaam mahmud mooy dañ koo sant dañ koo gërëm nga gis ko te moom baatu Mahmoud boobu la jëfandikoo ci bi muy tudd yàlla mais ngir wane ne ngir wane dëgg-dëgg ne euh, dama lay won à quel point la kii nekkee vraiment maanaam koo xam ne maanaam Mahmoud boo xamante ne euh, dañ koy sant mu nekk ci cant ginnaaw cant ñu koy gërëm ginnaaw gërëm te adduna bi yëpp di ko gërëm euh, ngir ne borom bi subhaanahu wa taala cant gi mu sant boppam dafa làqatu carrément nekk xadara boo xam ne xëy bu la dafa kumpa la waaye nag mi ngi feeñee à travers ki nga xam ne mooy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam looloo tax borom bi subhaanahu taala moom la wax ne Muhammadun mu ne rasulullah moom la yàlla yàlla maanaam mooy borom subhaanahu wa taala euh, moom ci ci ci turu bi ak melo bi ak nekk-nekkam maanaam euh, directement yabal fee génnewu ci mbindeef yi amalu ci mbindeef fi waaye à travers jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la leen amale Euh, loolu moom moo tax muy nekk ki nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala njëkk amal comme ni nga xamante ne noonu la ko xasida kii euh, xadis leerale euh, ci xadis sayyidina Ubaada ibn Saamit radiyallahu tabaaraka wa ta'aala anhu bi nekk ci sunan imam Abu Dawud sunan imam Tirmizi ak sunan imam ak Musnad imam Ahmad rahmatullah al jamii borom subhaanahu wa ta'aala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne awwalu maa xalaqa Allahu al-qalam njëkk bind moom mooy qalam gi موتة بيان برامس أنتار موي القلم قلم الأول فلا موي القلم موم موي قلم بيجكي نبرامس أنك لا موم لجك أمل نكن أنا كيرين يعني حديث من أول ما خلق الله عقل يلا لين جك أمل موم موي قلمي موي العقل موي لين لان لين تنك تبرمي موي العقل الأول <coughs> يجيب إيميل الله كيرين يعني تبي سلاسل أك آه، أك الماء إن الماء لم يخلق الله شيء قبله maanaam ndox di ndox mi yàlla bindul dara avant moom te ndox moomu mooy maa ul xayb mooy maa bi ndox mi nga xamante ne mooy ndoxu kumpa bi te mooy yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp ay tiituru yenente bi lañ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lool yooyu loolu lu mat a bàyyi xel la yooyu yëpp ay tiituru yenente bi lañ sallallahu alayhi wa sallam mi ngi mel ne tey bu ma ne président de la république euh, euh, chef de l'état chef suprême des forces armées le gardien de la constitution même nit ki lay wax maanaam ci ay angle yu wuti mais lépp day dellu ci jëmmi ki may waxal maanaam kon loolu tamit bu ma nee yenente bi sallallahu alayhi wasallam buñ ne moom la yàlla njëkk amal daal di wax ne xel yàlla njëkk amal wax ne xalima gi la yàlla njëkk amal ne ndox mi moom la yàlla njëkk amal loolu yëpp ah euh, maanaam mooy yenente bi rek sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xam ne lépp day dellu ci jëmmam ju tedd ji salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi Euh, kon loolu nga xam ne moom mooy li ko borom subhaanahu wa ta'aala yëkkatee noonu euh, euh, feeñale ko noonu te ci moom à travers moom la feeñalee turam yeeg melom yëpp moom lay ne waaw mais loolu segam mbir mi xaqiqa bi noonu la demee waaw kon naka la yeneen yi sax mën yéegi yéeg gu mel ni yow sag yéeg loolu na la na a nekke te yeneen yi alayhi salaam ñoom ñoo gën ci mbindeef yi ñoom ñoo gën ci li yàlla bind. alayhim salaatu wassalaam loolu moom mën nañ ne sax ijmaa lu ci borom xam-xam yi ngir ne maanaam ne borom subhaanahu wa ta'aala daf leen a def ndax eh, ndax nabiyu maanaam wala nabiyu maanaam mi ngi jóge ci an naba'u wala boog an ah, ah, bu dee ci an naba'u mooy information yi nga xam ne maanaam yi nga xam ne ñoom lañ leen di jox te moom mooy an naba'ul parce que naba. duñ ko wax information boo xamante ne euh, amul solo maanaam euh, yeneen ni dañ leen wax axbaar mooy xabaar yi wala xabaar mooy information mais bu ñu waxee ni mbir mi naba la maanaam mooy mbir mu rëy rëy la maanaam mu ama am solo la boo xamante ne dafa important comme euh, comme amma yatasaaluna anin naba'il azim ak comme qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun comme ni ko alquran waxe mais lii information la bu rëy bu am solo naba voilà ah euh, waxal ni qul huwa naba'un azim lii de information bu rëy la voilà mooy euh, yowmal xiyaamati mi ngi ñëw par exemple yowmal xiyaamati mi ngi ñëw am na mbir yu bëri yoo xamante ne eh, da ngeen ko war a xam da ngeen ko war a waajal loolu moom mooy a naba maanaam yooyu moom mooy nag mooy information yooyu ñoom nag dañoo ñëw ngir informe nit ñi ci mbir yi gën a rëy yi ëpp solo ak xamal leen lan la yàlla bëgg ñu àtte woo ak lan lañuy la yàlla bañ lan mooy gërëmloo borom subhaanahu wa ak lan moom mooy tax ba borom subhaanahu wa taala du kontaan maanaam information yu amee solo noonu yooyu la yeneen yàlla bi sallallahu alayhi ñëw di jàngale mais yeneen yàlla bi sallallahu alayhi wasallam du ñu ngir jàngal nit ñi nan la ñuy defaree ci jën nan la ñuy eh, duggee marché nan la ñuy eh, yëfu mbéyeen yooyu non non non euh, ak. Euh, euh, nan la ñuy tabaxee étage nan la ñuy non non yeneen ci yaay sax information yi ñuy joxe dafay nekk mais euh, d'une importance capitale c'est-à-dire que mbir la yoo xamante ne yu rëy rëy yoo xam ne dafa màgg dafa rëy dafa am solo lool yeneen ci sa sax looloo leen di tax a mais luñ fi nekk di nettali di di di di wax wax yoo xam ay mbir yoo xamante ne dëgg-dëgg loolu euh, bariwul solo lool dégg nga loolu moom mooy an na mooy mooy mooy jugi gi mu jugi ci an na baw mais dafa jóge tamit ci an nabwatu mooy ak yëkkatiku maanaam le fait que yeneen yàlla sa sal ñoo féete kaw ñëpp dégg nga euh, léegi nag laaj bi mooy waaw su fekkente ne dañuy yeneen yàlla yu saa salaam yow de sa yeneen euh, kayfa tarqa ruqiyakal anbiya maanaam yii mun a maanaam wala boog ana nan moo ana nan. la mën a yéegi yenent yàlla bi sallallahu alayhi lañ mën a yéegi sëg yéeg yow yenent bi sallallahu alayhi wax na ñaari xeetu yéegi mais ki yéemu maanaam maa ngi yéemu sax ci ki nga xamante ne mbir mi ci boppam da ciy dute da ciy sikki sàkk di jàpp ne xëy na non pourtant bu ñu xoolee yenent yàlla diw ni mu meloon yenent yàlla diw de maanaam alors que euh, yenent buy ñëw borom subhaanahu wa taala daf dinañ ko gis incha allah maanaam daf koy wax ne ko ne ko na na na na informé xeetam ne leen mi ngi ñëw waaw kon léegi laaj moom mooy mais attention parce que yeneen yi la wax mais am na ñu ñuy tuddee rusul mooy al mursaluna ñi nga xam ne dañ leen a yabal parce que ñoom ñoo gën a màgg quand même ambiya yi waaye li lay wax moom mooy tontu bi mooy yeneen yi alayhi salaam maanaam al ambiya wal mursaluna maanaam mooy. Eh, képp koo xamante ne rasul nga rek mooy dañ laa yabal daf fekk na nabi yu eh, lan moo différencier entre nabi ak rasul loolu borom xam yi wax nañ ci rahmatullah mais ak lu ci xew d'accord nañ ci benn mbir mooy kuy képp ku nekk ab rasul c'est parce que ab nabi yu au moment où mbir mi noonu la demee mooy kon eh, kon bu waxee ambiyaaw ñëppay dugg ci biir kep kuy rasul da ngay deug duggaale ci bir kon mune ya sama am euh ya bi meuna nek nekk ni daa mais meuna nek ni li taajub maanaam mooy ya samaa yow mi nga xamne yow yaay asaman su mak soosee ndax lan ndax mo tim ñep mom yenente bi saa sala mo fété ñep parce que arab yi dañu kulama fawqaka ko fofu sama lepp lu lu fété kaw rek lolu asaman da tudd kon Euh, kon maanaam yow mi féete kaw ndax ndax sut gi mu sut ñëpp waaye tam mën na nekk yaa sama an yéemu naa ci asamaan soosu su màgg soosu mooy yenente bi sallallahu alayhi wa nga xam ne maapaa walataa sutantewul ak moom sama benn asamaan mooy euh, amul kenn ku féete kaw kenn ku yëkkati ko bay mën di jéem a sutanteeg yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu amul moo gën ñëpp ci luñ joyal mooy sababu ñépp moom moo tax ñëpp lépp di am te loolu lay layal bi mu naan bi mu waxee ci bayit bi ci tegu lam yu saawuuka fii ulaaka waqat xaa lasanaan min ka duunahum wasanaaw lam yu saawuuka yamuñu ak yow tolloowuñu ak yow mukk loolu mënul waxuma la yeneen ci waxuma la ñeneen mbindeef yi waaye yeneen ci yeeg malaaka yi alayhi salaatu wassalaam tolluwuñu ak yow yemuñu ak yow ndax bu waxee yeneen yi alayhi salaam malaaka yi dañuy duggaale ci biir ndax malaaka yi segam maam aadama ak ñi ci ronam ci ronu yeneen bi lañ ne sallallahu alayhi wasallam malaaka yi waxaale wuñu leen ndax malaaka yi maam aadama leen sut moo leen féete kaw d'ailleurs loolu moom moo tax comme niñ ko xame borom subhaanahu wa taala euh, ne leen nañ ko jàngal na leen jàngal mu jàngal leen am bi hum bi asma'i haula'i jàngal leen tuuru yii yëpp tuuru mbir yi mu jàngal leen lépp borom subhaanahu wa taala ne leen usjudu li Adama sujjóotal leen moom Adama maanaam sujjóot leen ci direction bi te loolu la tax. mooy leer yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nekk bi nga xamante ne moom la ñu dëxëñaale ci biir maam aadama alayhi salatu wasalaam xattaa ba maam aadama alayhi wasalaam comme xadis bi ni mu nekk ci mustadrak imam xaakim bi naan allahumma mu na ko yaa rabbi inni as'aluka bi bi xaqi muhammadin illa taghfirli ee eh, yow sama buur sama borom maa ngi lay ñaan ci barke yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ne nga jéggal ma borom subhanahu wa ta'ala waman wama Muhammad waman Muhammad yow lan Muhammad nag Muhammad <coughs> mu ne ko lamma xalaqtani bi wa nafaxta fiyya min ruuxika rafa'tu ra'si wa ra'aytu ala qawaa'imi al-'arshi maktuban laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam eh, yow bi ma yëkkatee sama bi ma bindee ci sa sañse ak sa kattan ci sa loxo muy melo ci borom subhaanahu wa taala nga bind ma nga wol ci man sa ruux maanaam te ruux boobu mu wol ci moom xaqiqatan euh, mooy ruuxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam parce que li koy dëgëral mooy na mooy aaya beneen bi yasalunaka anir ruuxi qulir ruux min amri rabbi dañu lay laajte ci wàllu ruux ar ruux muy ruux bu mag boobu nga xam ne mboolem ruux yi ci lañ génne waxal ne ar ruuxu min amri rabbi ci aalamul amr la monde bi nga xamante ne monde commandement divin bi la mais bu tukkee ci sama boroom man yeneen bi sallallahu alayhi kon dañuy xam ne ruuxu boroomu maanaam ki nga xam ne kon ruux boobu ci commandement wu boroom yeneen bi la génnee sallallahu kon muy ruux bu mag bi mooy ruux yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi euh, kon moom la wol mu ne ci ci ruux maanaam ci moom la wol ci moom moo tax maam Adama alayhi salaam incarné jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wa mu jël forme yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax euh, euh, euh, loolu lu lu lu mat a bàyyi xel la kon te bi biñ ko laajee ne ko waaw léegi mu ne parce que bu ma bindee ba pare ba ma wol ci man damaa yëkkati ba nga wol ci man sa ruux damaa yëkkati sama bët gis ci pon kenoy arach ñu bind ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ma xam ne nag dëgg-dëgg sa tur doo ko boolee tur lu dul ki nga xam ne moom mooy ahabbal xalqi indaka ki gën ki gën ci mbindeef fi ki gëna gën gën a sopp fa yow mu ne ko waaw waaw kooku de eh, moom mooy mujjug yenent ci sa ci sa ci min zurriyatika la aaxiru anbiya min zurriyatika walawla muhammad maa xalaqtuka te budul woon muhammad yent yàlla muhammad boobu saa duma la bind yow maam aadama alayhi salaatu salaam euh, te euh, même bu fekkente ne xadis boobu euh, marfu'an boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim boroom xam-xam xadis yi dañ koy jam mais li nga xamante ne moom mooy xadis boobu wér na mawquufan ala ibn Abbas radiyallahu anhuma Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wér na ni wax na ko te loolu noonu du ko wax ci loo xam ne ci xelum boppam la jóge sikk nekkul ci ne lu mel noonu su ko waxee c'est parce que def ko jëlee ci yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon euh, segam malaaka yi mam aadama leen raw te mam aadama rawul ci yeneen yi alayhi salaatu wasalaam bokkul sax ci juróom yi ulul azmi yi waaw kon ki leen raw kon kay sikk nekku ci ne moo raw ñëpp parce que malaaka yëpp leen leen ci jotlu moo leen raw mooy kon lam yu saawuuka yemuñu ak yow fii laata ci sa kawe <coughs> mus ñoo yem ci sa kawe waxatte dëgg-dëgg xaala diggale na maanaam dox na seen diggante sanan ak leer min ko bu tukkee ci yow maanaam sanan mooy leer bu mag mag mooy nuurun azim leer gu mag a mag a mag loolu leer yooyu nag mooy leer yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon kiiraay yi et que borom subhaanahu wa taala moom comme ni ko bi waxe ci Sahih Imam Muslim xijaabuhu nuur kiiraayam mooy leer leer gogu muy leer yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne leeram moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo nekk loo xam ne kiiraay yoo xam ne dafa tax ba kenn jegewul borom bi subhaanahu wa ta'ala waaye digganteem ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam xaqatul dafa am ay leer yu bëree yoo xamante ne eh, dañ dañ dañoo yiir dañoo dañoo dox ci diggante eh, eh, mboolem mbindeef yi xattaa ba yenente yàlla sallallahu alayhi wasallam ak xaqa moom lay wax naa nuurun moom Seydi El Hadji Malik radiyallahu anhu moom lay wax ci Tayssîr nuurun axaata bihil anwaaru xaajibatan anil xaqiqati kullal xalqi yàlla maanaam leer yenente boobu sallallahu alayhi wa mooy leer bi nga xam te ne dafa yiir xaatar bi al anwaaru maanaam ay leer dañ ko yiir mais leer yooyu ko yiir ay leer la yu tukkii ci leeru yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam nga xam te ne xaatar bi xaajibatan anil xaqiqati nga xam ne dañoo yiir wëllif xaqiqa bi maanaam diggante xaqiqatu muhammadiyya dëgg-dëgg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy kan dans sa réalité intrinsèque dans sa c'est-à-dire que la la la lumière mohammedienne originelle leeru yenent boobu sallallahu alayhi wasallam maanaam xattaa ba moom ci boppam dafa am ay leer yoo xamante ne ñoo dox ci digganteem ba nga xamante ne képp kuy mbindeef dafa dox sa digganteeg moom euh, moo tax euh, comme ñoom Abu Yazid al-Bistami li ñu wax comme ku mel ne euh, Seydina Uwais al-Qarni radiyallahu anhu ak ñeneen ak ñeneen lu ñu wax ne juróom ñaar fukk junni geedji leer dafa dox ci digënté manam nga xamantene ñoom bu ñëwé ba nga xamné ne ak xaqatul muhammadiyya yeneen bi wasallam dëkk dëkk moy kan ba war nga ma mëna xam moy kan mo wara manam mën a kan. accès ci moom fokk suma ñëwé ñëwee ñaar fukk junni geedji leer dox nañ ci digënté ku ne manam ku dem ba wara wara jéggi ba am tane bu ko jéggi rek day lak bu koy jéggi di lak di sey carrément parce que loolu voilà lu tax parce que maanaam mënta accès am accès ci ci ci ci ci ci ci yenente bi sallallahu alayhi noonu nga xamante ne kenn mënta xam yàlla noonu tamit kenn mënta xam yenente bi sallallahu alayhi wasallam dëgg dëgg xam ku nekk dafa am rek lu la ci borom subhanahu wa ta'ala mosal nit yu aarif billah yi ñu kawe ñëpp dafa am rek lu leen ci borom bi mosal yeneen yi alayhi wasallam daf leen dafa am lu leen ci borom subhanahu wa ta'ala mosal moo tax ci nan lañu mën a moo tax mu ne mënta nekk lam yu saawuka munuñoo yem ak yow yee bi saasam fii ulaaka ci sag kawe waqat te fekk nag xaala euh, dig-digal na sanan ak leer bu mag a mag a mag mi ngi ko bu tukkee ci yow duunahum wëllif leen wasanaa u akuk yëkkitiku gu rëy sanaa moom mooy euh, ar rifaatu maanaam ar rifaatul azim wala wala bokk al ulu maanaam mooy ak yëkkitiku bu kawee kawe yeneen bi sallallahu alayhi moom mooy boroom yëkkati ku kawe gi c'est que maanaam da kawe kawe kawe ba xam ne en fait ñoom mënuñoo dem maanaam mënuñoo yéeg ba ba daj la mënta ne euh, li am ba des nag mooy ñoom ni mel ñoom yeneen ci yàlla sallam masaloo dañoo misaalal sifaatika say melo li naa si nit ñi maanaam mboolem jikko yu rafet yi ñuy tudd ci yeneen ci yàlla Musaa salaam comme bu ñuy wax muñu yeneen ci yàlla Yuusufa bi masala alayhi di wax euh, jikko yu rafet yu bari bari ak ñoom yeneen ci yàlla Ayyuba alayhi salaam euh, tabek Seydina Ibrahima alayhi salaam ak ñeneen i jikko yu rafet yi ñuy wax ci mboolem yeneen ci alayhi salaam borom bi subhaanahu wa di leen wax yeneen bi sallallahu di leen nettali. jikko yu rafet yi ñu ràngu yëpp melo yu rafet yi ñu ràngu yëpp ñoom yeneen yi alayhi salaam en fait lenn rek am mooy innama li am ba des mooy lii rek am mooy ne masalu dañoo misaalal sifaat kasay melo lim naa si ñoom nit ñi mooy ne euh, melo yi nit ñi amee yëpp bépp melo boo xamante ne nit ñi dañ kaa maanaam ñoom dañ kaa amee rek dañ ko maanaam dañ ko en réalité dañ doon dañ doon benn partie yow ci ni mu nekkee ci yow lañ doon wane euh, gis nga am alquran mi ngi junj lu mel noonu bi mu a euh, ulaa'ika allaziina hadaahumullahu fa bihudaahum iqtadi ñii ñooy ñi nga xam ne ñooñu la yàlla gindi ci seenu gindeeku topp roy roy leen maanaam mooy dañu yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenent yi ma la salaam Euh, yàlla daf leen a gindi mais roy leen te sikk nekkul ci ne bu leen royee moom yeneen bi sallallahu alayhi topp seeni tànk maanaam def lañ defoon loolu borom bi bu ko ko digalee sikk nekkul ci ne dana ko def ndax dafa bokk ci li jomb ci yeneen mooy borom subhaanahu wa ta'aala digal ko dara ba pare loolu du ko def loolu mënta ne loolu la ñu tuddee asma mooy ak ñoom mooy infaillibilité indéfectibilité maanaam ñoom amuñu. Eh, maanaam munuñu mooy yàlla kon borom subhaanahu wa su ne ko yeneen yi yëpp alayhi salaam ba pare ne toppal seen mooy mooy def na ko kon loolu lu muy tekki mooy mboolem lu yeneen yooyu dajalewoon moom dajale na ko mais loolu buntuk ishaara la daf ko junj lu tax parce que loolu yëpp ay teranga la yu mu defal yeneen yi alayhi salaam maanaam ci teranga yi mu defal yeneen yi alayhi salaam mooy ne ñoom dañoo jiitu ci àdduna waajal terrain bi. pour ki nga xam ne dëgg-dëgg moom mooy yellooti yi voilà moo tax euh, boroom saxam naan wa iz axada allahu misaaqa nabiyyiina lamaa aataytum lamaa aataytukum min kitaabin wa hikma summa jaa'akum rasuulun musaddiqun limaa ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna maanaam boroom subhaanahu wa ta'aala ne dafa kóllërante woon ak yeneen yàlla sallallahu alayhi wa sallam mooy euh, ci sootu dafa kóllëre wante ak yeneen yi alayhi salaatu wassalaam ne leen maanaam kon loolu mooy wane ne parce que daf ne mi mi saaku nab yi ne yeneen yi yëpp la kóllëre lool mooy ne kóllëre googu ca alamul xayb la amee woon nga xam ne mboolem yeneen yi la dajale woon kóllërante ak ñoom ne leen lan ne leen dinaa leen yónni ci saw suuf <coughs> su ma leen yabalee képp ci yéen koo xamante ne am na yenentu yéen sama yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu yent yàlla Muhammad su ñëwee dangeen ngeen di topp ci ginnaawam te d'ailleurs loolu yenent bi sallallahu alayhi fiiri na ko ne law kaa foofu billadi nafsi bi yadi law kaana Muusa hayyan lama wasahu illa yattabi'ani ci beneen riwaay mu ne law kaana Muusa wa Isa ibn Maryama hayyan lama wasahuma an yattabi'ani mais waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne muy borom subhanahu wa su yenent yalla musa salam yenent yalla Isa dun dund dar amuñu benen possibility ci ñoom lu dul ñu top sama euh kon yenent bi sallallahu alayhi wasallam yenent yalla sallallahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala da fu kóllërante ñoom ne len yenent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam su len fekke ci kaw suuf la tu'minun nabihi da ngeen koy gëm par force wala tansurunahu te da ngeen ko dimbali da ngeen di wulbeetiku topp li nga xamante ne moom mooy moom ci li mu ne ngeen nekk ci ginnaawam borom subhaanahu wa ta'aala aqrartum wa axadtum ala zalikum isri est-ce que kul kii ngeen dëggal ngeen saxal ngeen li ma wax te jël ngeen lii maanaam ngeen yanu ko mu nekk lu di maanaam kóllëre gu diis goo leen fasarante ak man qaalu aqrarna ñoom ñëpp ñu ne ñu waaw saxal nañ ko borom bi lu mu leen wax fashhadu wa ana ma'akum mina shahidin seede leen lii man yàlla man borom subhanahu wa ta'ala maa ngi ànd ak yéen bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy seede loolu muy wone dëgg dëgg dëgg dëgg kan mooy yonent bi sallallahu bi nga xam ne moom la ko borom bi moom sikk nekku ci kon bu ne ci beneen aaya bi fële ne na ngeen ko maanaam ne yeneen bi sallallahu roy leen maanaam loolu teraanga la gu mu defal yeneen yooyu alayhi comme ni mu ko waxee ci maam Ibrahima a inna Ibrahima kaana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikina shakiran li an'amihi ijtabaahu wa hadaahu ila siraatin mustaqim mais bi mu paree ci tagg yooyu lu mu ko wax daf ne summa awhaynaa ilayka an ittabi' millata Ibrahima moom kese. benn nit la koo xamante ne dafa dajale jikko yu rafet yëpp moo tax mu wax ci benn aay bi wa Ibrahim allati wafa ak maam Ibrahima sa bi nga xam ne matal la lépp moom dafa nekk kuy gërëm borom bi subhaanahu wa di ko sant di sant xéewalam yu ko def borom bi de ijji tabaabu daf ko tabb yëkkati ko ba pare gindi ko teg ko ci yoon wi nga xam ne moom mooy bu jubbi mu way ginnaw gi nak dañoo wax yu ci dañ la wax yu ne manam moy da fay wax xéewal yim mu defal maam Ibrahima sallam di leen lim mais mu summa summa do lo du du du par rapport ak temps bi de dedet moy xéewal yi ma defal mom ibrahim yëpp alayhi salaam yi ma la limal yëpp amna bu ko gën a rëy aw xeyna ilayka wax yu biñ la wax ne ani man millata ibrahim hanifa ne topal lu yoon mom ibrahim alayhi salaam boobu moom mooy xéewal bi gëna reuy bi ma defal mom ibrahim alayhi salaam. li tamit lool mom motax deng dégg nga loolu moom moo jaawale bul jaawale mukk abadan manam ay yoy bu ko degge mukk manam deggin wo xamantene bokk bokkut deggin bu baax kon euh kon euh, ñom sen melo yip yenen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moo ko moo ko meloo dëgg en réalité dañ ko top rek motax mom la waxe ci bourdo bi ne ka annahu shamsu fadlin hum kawaakibuha yuzhirna anwaaruha linnaasi fi dhulami moo ñoom dañoo mel ni ñoom yeneen ci yàlla sa sam shamsu moom yeneen bi sa sam daa mel ni eh, jantub ngëneel hum ñoom yeneen ci yàlla sa sam kawaakibuha ñooy biddew ñoom biddew ñu def mu ne yuzhirna dañuy leeral anwaaruha maanaam dañuy feeñal anwaaruha seen leer ya linnaasi ñeel nit ñi fi dhulami ci lëndëm maanaam boo gisé bidiw yi nefi di di gindi waté di léralaté xamal ni jant bi fi nekkul bis bu fi jant bi nekké beccu ndaat kam do gis bidiw yi manam moy yenen tib sallallahu alayhi wasallam ba mu yor ngeenel gep bidiw yi manam kaw kawakib kaw kap moy du du du étoile planète lay tek planète voilà moy kon planète yi. ñoom buñ fi nekkee astre yi yéen di di di feeñal di leeral nit ñi daf fekk ne bi eh, jant bi fi nekkul rek waaw dégg kon ñoom lu ñu def ñoom yeneen yàlla si saam mu ne masaloo dañoo misaalal sifaatu ka say melo yi lin naa si ñëw nit ñi kama kem li nga xam ne masala noonu lay misaalale an nujuumu an nujuuma ndox yi al maanaam euh, euh, biddiw yi bokk almaa ndox yi ndox mi maanaam tey bu ñu gisoon ne dafa am benn lac bu fi ne maanaam sew ne ñu gis ndox wala ab dex ngay xool ndox mi di gis biddiw yi ci kaw maanaam yow ni ngay gisee biddiw yi ci biir ndox mi moom la lay wax ne yenent yi alayhi salaam noonu la ñu misaalalee ah melo yenent bi saa alayhi maanaam melo yenent bi sallallahu alayhi ñooy vrai biddiw yi melo yi ni mu feeñee ci biir ndox mi moom mooy comme yenent yàlla sa sam niñ ko feeñalee par benn benn par benn benn moom nag yenent bi sa sam mu dajale biddiw yëpp nekk biddiw yëpp ensemble biddiw yi c'est meloom yu rafet yëpp nekk ensemble biddiw yi et que yow mi yow yenent bu ne représenté benn biddiw wala benn ensemble biddiw ngay xool ndox mi ni mel noonu la mel lépp lu la leen yëpp ci yenent rek xamal ni reflet rek la ci ni mu mele ci yenent bi dëgg-dëgg sallallahu alayhi loolu lay wax ni mu ne anta yow yenent bi sallallahu alayhi maanaam parce que parce que boo xoolee biddiw yi euh, ni ñu mel boo ko xoolee dëgg-dëgg soo seetloo di nga gis ne bu nekkee ci ndox mi ndox mi en fait. Euh, comme day am ay ondulation maanaam du taxaw benn place day gis kon biddiw yi ni muy nekkee ci kaw te leer nes nesi noonu boo ko gisee day am maanaam dina am benn déviation bu ndaw maanaam du ci du mat ni mel comme image boo boo yor rek maanaam ndox à travers ndox mi da gis eh, eh, eh, kii bi bi maanaam le fait que muy mu maanaam da gis du mel tikk tikk tikk comme ni mu mel fii lu tax parce que dafa am ay ondulation donc yooyu ñoom ñooy soppi tuuti ci melo yi maanaam ni muy nes nesee ni mu war a leeree ni mu war a maanaam bokkut ak ba tey maanaam original bi sax copie bi ba tey duñ ñëw maanaam ñu gis kon yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ni mu mel par rapport yeneen yeneen ci alayhi salaatu wasalaam euh, incha allahu taala dañuy daal di fi ba jotaay bii di ñëw ñu yeggale incha allah ci wàllu boobu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله